tëju fi ñu toog fi ñu toog di reetaan rek léeg-léeg nga gis benn titre journal coalition Yewwi Askan Wi dans les eaux troubles <laughs> les ambitions plombent peut-être suñu xamoon ñun lu ñu seq suñu xamoon ñun lu ñu seq ak li ñuy fonctionner defe naa yenn wax kacaw kacaw yi duñ ko wax coalition bu dëgër la ñu seq politique waaye seqit ci àdduna man ñi ne ci coalition bi ñii samay mag lañu ñii sama yaay lañu ñu seq lu fort a fort a fort loo xam ne Sénégalais yu bëri xamuñu ko ñii samay moroom lañu ñii samay rakk lañu tuuti xam na ñu ma ci mag nag ñoom booy dëccee yooyu magee naa leen ay un yooyu <laughs> kon voilà mais am na lu ñu seq loo xam ne dafa dépassé politique politique nag moo tërëji mun nañu dem ba ñu ne benn génn na <coughs> waaye ñu ne coalition bi tas na loolu mënul am nga gëw ma ko man coalition boobu nag mhm. dañoo taxaw mu am ñu jóg ne coalition bi du am dara mu am ñu ne c'est l'occasion d'ailleurs ñu rendi définitivement cette opposition radicale radicale antirépublicaine ñu dem ci télé yëpp wax du ngeen am dara ñu dëgg ci élection yi génn yàlla may ñu lim ñu may ba ñun ñu am yaqin ni élection yi ñun ñoo ko gañe kon ban intérêt lañu ñu am coalition bi ñu ñu naan Pastef dem na wala taxaw dem na wala pure dem na wala ànd dem na wala euh, perpe dem na wala euh, grand parti dem na déedéet tey la gën a dëgër la war a wax kay mooy <coughs> est-ce que investiture ndax dina gën a yaatu mm-hmm. puisque ñu bëree ngi émettre vœu ne dañu war a gën a yaatal na opposition bi daje ñu nag attooguñu si ndax dina gën a yaatu ak su gën a yaatu ñan la war a concerner débat bi foofu la nekk de waaye débat bi nekkul ndax coalition bi ndax kii dina dem moom dong élection législative wala que dina dem élection législative damay fàttali nii bi ñuy créer coalition bi charte bi dafa leer dañu bëgg a ànd élection locale continuer élection législative continuer ba présidentielle donte am nañu ñaari candidat wala ñett cadre bi dañu koy bàyyi superviser ndoo élection yi daal di bind suñu benn charte ni def suñu programme minimal ne nag ku yàlla def mu mu dem ñeneen ñëpp dañuy def bloc ñu liggéey loolu moo te amul kenn ku ko tri maintenant nag ñi ñu yaakaar moom bi nag ndax jàppoon ne mën nañ leen fa galgalaat ñun parrainage bi doon suñu problème parrainage hmm. présidentiel man damaa demoon seul am parrainage amoon nañ lu ëpp quatre cent mille pare ci la ñu laajoon soixante cinq mille pur am pare Khalifa Sall am pare ndax fa bu ñu fàtte ne Khalifa Sall du ci parrainage lañ ko jàppee am na parrainage ba déposé hmm. conseil constitutionnel ne il n'est pas éligible bu dee demoon nañ kenn ku nekk teewul ñu am parrainage tey ñun ñu ànd ñun ñëpp. parrainage c'est pas mais problème bi newul foofu. Mhm. problème bi mooy. waaw parrainage cour de la CEDEAO dafa nekk parrainage bi du yoon. Macky day def lu ko neex parce que su dee décision justice mënul am gëdd man lu ma neex laay def te noonu la mus a doxee bi muy voté sans carte d'identité di di fëkk bureau de vote ba léegi noonu lay doxee moo tax ku toog fi naan la la la la loi a dit le droit da lay tër fii léegi xamul loolu. <laughs> léegi nomination poste premier ministre bi. parce que indi nañ ko assemblée. en procédure d'urgence le 10 décembre ñu voté ko assemblée. mais boobu ba léegi ñëpp ngi toog di déglu élection dox na ci diggante bi mais le président prend tout son temps visiblement pour nommer un premier ministre et former un gouvernement noo gisee. Mamar euh, au risque de te décevoir man mbirum premier ministre intéressé wu <laughs> vraiment débat bu intéressé wu ma. ndax xam nga lu tax mu war la intéressé. ndax bu fekkee légaliste nga parce que am nañu ni am na ay décisions yu président di jël ça peut même être di légalité parce que ça doit contre contresigné par un premier ministre. xam nga loolu donc normalement sous cet war na la intéresser. non xam nga loolu débat juriste yi la ñoom professeur Ngouda ak ñoom ñi ngi ñi ngi ciy wax lu am solo mais gëw ma ni askan wi dina génn def ay manifestation ànd ceeg tamit Macky bi muy bi muy supprimer poste ministre premier ministre consulté kenn kenn consulté moo xëy ne bëggatuma premier ministre dem ba jaaxle mu ne waat andi naa premier ministre moom ak premier ministre am ak lim ciy def man nee naa intéressé wu ma wax naa keroog su buggee sax ne jël far Farba Ngom def ko premier ministre ñun suñu yoon new ci xam nga lu ñu intéressé parce que dafa am loo xam ne day dañ koy créer pour divertir nit ñi. ñun on est concentré sur l' essentiel essentiel bi mooy jafe-jafe bi sénégalais yi di dund te moo waxaat ko tey sénégalais yi yéen laay waxal waxoon naa leen ko bu ñu génnee élection présidentielle dina métti torop yéenewuñ ko Sénégal nag waaye ndóol gi dina gën a métti ñàkk xëy gi dina gën a métti ñàkk loo lekk dina gën a métti bëgg a faju mu tax jafe dina gën a métti loolu du autorail du stade moo koy réglé parce que depuis le début la Macky Sall raté lépp ba pare topp ci tubaab yi ñu koy dugal ci li ñu bëgg ñoom loolu mooy réalité bi ba tax man loolu mooy suñu première préoccupation ñaareel bi nag mooy dañoo jóge ci élection di dem ci élection ñun kenn duñu divertir na xale yi génn dem bindu ji dañoo commencé benn liggéey posé nañu acte un mooy élection locale yi buñ leen nërmel liggéey bi il faut ñu yeggali ko mooy deux mille vingt quatre wax ma Macky Sall de Macky Sall ne sera pas candidat dans ce pays en deux mille vingt quatre man loolu laa gëm waaye dama ne système am bii ak ñi mu àndal il faut Sénégal yi xam ni il faut ñu jëlee leen fii loolu nag ndaw ñi dem leen bindu jël seen carte massivement waajal élection bi coalition bi wala coalition yi dañ leen dañ leen defaraat defaraat suñu toogaay xam ni mbir mi day door. loolu mooy l'essentiel fi mu toll nii ay waxu premier ministre la question de de bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum euh, dynamique unitaire bi ñu am au niveau de Yewwi Askan Wi fa fa laa bëgg mu dellusiwaat donte bu fekkee sax yéen da ngeen a nekk ni ci renforcement ngeen wax mais unité boobu naka lañ mën a def ba maintenir ko question boobu fa laa day ñëwaat li ko waral moom mooy dañoo gis koo xamante ni bokkoon na ci sorante wu leen ci kuréel goo leen bokkoon pour na pas le citer Boubacar Camara ñu gis récemment mu def sortie ñu bare bari nag ni njort ni fii deux mille vingt quatre bu ñu moyu léeg li nga xamante ni choc des ambitions bi nga xamante ni am na fi donte sax ci diggante bi gis nañu parti démocratique sénégalais à travers donc la coalition Yewwi euh, wàllu euh, ubbi nañu en tout cas loxo yi ni leen dañu bëgg yéen gunge ngeen leen sax li nga xamante ni moo xewoon foofu ca Pikine euh, ak docteur Cheikh Dieng ñu ni choc des ambitions maanaam ku nekk ci leader yi nga xamante ni ñoom ñoo ko nànk li ñu bëgg ñoom mbébét ko muy président Ousmane Sonko di président Khalifa Babacar Sall di keneen ak keneen loolu bokk na ci li nga xamante ni par rapport ak yéen ñi ngeen janool ñi xam ne 2012 ak léegi am nañu benn coalition bu ñu fi taxawal quoi qu'on aussi Benno Bokk Yaakaar ba léegi mi ngi continuer d'exister ñu ni yéen euh, dina leen jaaxal lool pour ngeen mën a maintenir dynamique unitaire boobu la. xam nga Mansour yéen li ngeen bëgg mënul am. Mm-hmm. gis nga politique politique c'est pas l'armée les gens son libres d'adhérer ou de de de se désabonner. liberté la man li ma la wax néew ma la kenn du dem dama ne la coalition bi sookul bi dafa dëgër. coalition bi bu soobee yàlla du tas dina am ñu ciy yokk dina ci am ñu ciy dem peut-être donc loolu mënuñu ko jël mais coalition présidentielle sax nit ñaa ngi dem ñeneen di ñëw euh, defe naa sax ñiy dem ñoo ëpp ñi ñëw fi mu toll nii donc problème bi newul foofu. du ma tudd Masamba wala ba parce que gëm naa ni ku ñëw ci coalition bi rek da nga ñëw ma amul kenn ku ñu teg fetal sa bopp ne la tey da ngay ñëw coalition bi bu dee gisatoo ci sa bopp mun nga dem mais coalition bi moom sookul bu dëgër la te li ma wax dama ko am fu ma ko teg li nga xam ne mooy amu coalition bi li nga xam ne mooy ruuxu coalition bi lu dëgër a dëgër la. mais mën naa ba a yegg ba présidentiel quand même parce que dégg naa sax. ci li ngeen doxal. nee ngeen waaw xanaa nga bëgg mu yàgg président déedéet déedéet déedéet laaj. ne nga waaw déet dégg naa. en terme de disposition li ngeen d' accord mooy. législative bi xëy na mën nga see demee ensemble. mais boo leen demee ba présidentiel. ku ne dama képp ku bëgg yëkkati sa loxo. waaw li damay doon candidat ma doon. candidat mais bu boobaa est ce que la coalition va rester si day des xam nga ñaar ba ñett moo am. oui élection bu nekk ak. spécificité am élection bu nekk. soo nekkee ci élection raw gàddu yi ñëpp daje booloo moo ëpp solo parce que sooy seet score yi am na commune yoo xam ne ki ko gagné dix huit la ko gagné mm. raw gàddu la mm. sànq rek balaa may ñëw dama doon xoolaat les scores am na commune yoo xam ne dix huit pour cent la ko nit gagné donc raw gàddu bi ngeen def bloc bañ a das disperser seen force moo gën. Mm. élection locale raw gàddu la élection législative raw gàddu la mais élection présidentielle du raw gàddu. ñi spécialistes yi en politique dañu naan élection présidentielle li gën sax mooy ñi war a def face au pouvoir dañu fexe ba am ñaaroo la ñetti candidature yu dëgër ku nekk def le plein de voix nga xam ne après di ngeen mën a truc mm-hmm. loolu mooy premier élément bi deuxième élément bi mooy mais les ambitions munoo leen tere munoo ne kenn du am ambition donc su dee am na ñu am ambition te mun a demal seen bopp mun a am parrainage su dee parrainage bi maintenir nañ ko ba loolu am moyen dem seen seen seen mais ngeen bàyyi ñu dem mais ça veut pas dire que tey seen ànd tas na foofu parce que élection du rek nekk naa candidat mais am na loo xam ne su ngeen boole seen doole ngeen koy mu gën a mën a supervision élection yi par exemple. donc coalition bi ah. dina tas xëy na kay da ngeen di dajawaat après. wa mais dañuy daje ci cadre bi dañ koy. maintenir ok cadre bi dañ koy maintenir mu doon un cadre de supervision mm-hmm. et de gestion commune des élections nga xam ne du ñu réeroo ci dara. kenn ku ne nag yor nga sa programme booy présenter Sénégalais. d'accord alors bu Sénégalais yi ne diw la ñu tànn au premier tour wasalaam bu dee dañu war a dem deuxième tour te ki génn beneen candidat bi nekk candidat wu euh, nguur gi ñu ñëpp def bloc. ci candidat bi jàll. bu dee nag ñaari candidat ci ñun moo génn. boo boo dàq ci <laughs> lépp xaj na fi ah gis nga élection yi ñëw 2024. mooy les élections les plus ouvertes. yi mus a am Sénégal. parce que da ngeen jàpp ne Macky du ci bokk. Mm. alors mais man li may ñaan mooy Macky Sall bokk. ah oui <laughs> <laughs> Macky Sall. su bokkoon naa bi di gën a yomb. d' accord alors euh, neewoon nañ zéro heure du ñu fekk te dépassé nañ zéro heure.